2019 yi libéré ko mu dem parce que élection yi dañ bañu mu fekk ci bit bi ñu ko génnee fekk yàq nañ ab daram écrasé nañ ko politiquement ba Khalifa Sall lu nurootul lu kenn xam ah. mënut a taxaw fenn wax Ousmane ko moo ko jël ah. raxas ko ba mu set wecc sanga ko ba set mu teg ko ci kanam population bi ba nit ñi amaat beneen estimation te Khalifa Sall bu bokkut ak bu njëkk ba daara yi internat soxna jaara Porokhane 2 pour l'éducation des filles et la mémorisation du Coran ngeen ànd si ak le directeur Serigne Abdoulaye Yaqin mbokk innovation moo ngi nii ndaxte nag daara ji uniquement pour les filles la li ko tàmbalee six ans ba huit ans la ñuy recruter fii nag si daara ji mbokk yi si de quatre ans ñeenti at dong la ñuy dérouler programme bi tax xale bi mën a mokkal alquran si anam yu wóor te wér boole kook dina am yar ak teggin ndax nag fii jàpp leen muraay bi obligation la waaye tamit am nanu personnel boo xamante ni ñoo leen di toppatoo toppatoo bi ngeen bëgg seen xel day dal fu ngeen mënti nekk macha daaray internat soxna jaara poroxaan de ginnaaw nag mbokk yi bu fi xale bi amee 6 mois dina am base alquran dina fer iji yemuñu foofu de indi nañu si biir programme bi français waaw ndaxte adduna moo fa toll xale bi dina mën a xam adduna si langue bii nga xamante ni mooy suñu langue officielle mu mën ko utiliser ba mën a bokk si administration ëllëg bu fekkente ni day continuer jàngam dinañ ko jàngal mbooleem programme grammaire orthographe vocabulaire jàngal ko également mathématique waaye nag ña nga jiital alquranul karim defal formation informatique ndax mooy outil bi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo fii àdduna toll si àdduna wërngal këpp xale bi dina am base xam lépp luy logiciel yi ñuy utiliser jëfandikoo xarala yu bees yi daara yi internat soxna jaara poroxaan de am na ay bàjjan yuy taxaw xale yi ni leen ko waxe woon suba ak ngoon guddi ak bëccëg ku fi indi sa doom incha allah sa xel day dal ndax li nga bëgg loolee la lay defal jàngale bu xarañ ndax nag ñi ñu recruter dañoo xam wàll wi am pédagogie xaleel xam yar xam teggin am xam-xam ay modèle dina nekk ci sécurité dinañ ko toppatoo muy lekk di naan ak set geeg cell gi lépp daal yemb na fii waaye nag mbokk yi di fàttali recrutement annuel bi tàmbali na at bu nekk nag jamono ji la ñuy tàmbali di recruter te nag di leen fàttali léegi ñu clôturer ndax nag nombre de places yi dañ ko limité. asalaamaaleykum euh, mbokku internautes yi nga xam ne yéen a ngi ñuy suivre fii ci IATV ñu ngi euh, seet Serigne Mor mbay imam ñu xam ko bu baax ci ay waxtaan yu am solo yoo xam ne mi ngi koy waxtaan jamono bu nekk. waaye tamit di gunge tamit li nga xam ne moom mooy réew mi di leen yor seen kàddu tamit di leen waxal jamono bu nekk eh, jafe-jafe yi nga xam ne moom mooy jafe-jafe réew mi chaque jour ñuy dégg baatam rek eh, muy reeteet ak tamit eh, lépp lu jar dénoncé mu di koy dénoncé ñu seet si ko wara a waxtaan ak moom ci situation bi nga xam ne Sénégal mi ngi koy dund ak li nga xam ne jot na fi weesu ci fan yi dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci biir waxtaan bi bisimilah sëriñ moom aousubillah min asheytan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin <clears throat> wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi wa man sanna bi sunnatin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh <clears throat> sëñ Fàllu ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax di nuyu mbokki téléspectateurs yi IYTV di ñaan yàlla sunu kàddu fekk leen ci jàmm so waxtaan wi ñu war a seq ñu ñaan yàlla mu feccel ñu suñu làmmiñ defal la Sayidina Muusa ñaanoon borom hmm. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli yal nañu ko yàlla defal ci waxtaan wi yaa rab ba jullit ñëpp mën cee jariñu <coughs> waaye sénégalais yëpp mën cee jariñu incha allah jërëjëf euh, Serigne ci nuyoo bu am solo yi wax tamit euh, suñu borom ñu nangul ñu ñaan yi dañuy ñëw rek xaw a arrière li nga xam ne xew na fi semaine passée jëme ko ci assemblée li nga xam ne euh, président Bassirou Diomaye Faye tas na ko ngir soobuwaat yeneen élection waaye tamit euh, ñu bëggoon xam euh, ndax euh, jàpp nga ne rek contexte bi ñu nekk ki nga xam ne moom mooy président de la république tas assemblée nationale bi ndax jaroon na ko waaye tamit assemblée national bi nga xam ne jaroon nañ ko fi am muy quatorzième législature bi ndax jàpp nga tan tamit njariñam bari woon na bari goo xam ne manoon nañ ko fi bàyyi ñu eggalee li nga xam ne moom mooy seen mandat muy mandat cinq ans. ok bisimilah rahmaani rahim <clears throat> dissolution wu assemblée nationale man de damaa yaakaar ne bu fekkoon ne député yi mel nañ li ñu war a mel maanaam doon ay patriote mhm. euh, yaakaar naa doorutu woon jar ñu di ko tas. xam nga nag ñun Afrique fii dañoo am problème mu leadership ano ay patriotisme moo fi bariwul xam nga lu tax maanaam bu fekkee ne mouvance présidentielle ñoom ñoo amoon masorité ci assemblée nationale yàlla dogal ñu dem élection présidentielle réew mi sanctionné leen jële leen fi li waroon a doon seen seen gisin mooy réew mi loon moo leen doyloo woon jox leen ñaari mandaw benn mandaw sept ans jox leen mandaw cinq ans muy douze ans réew mi gis ne war nañoo sotti ay njiit ñu jële leen fi yëkkati réew mi jox ñeneen léegi ñoom li ñu waroon fas mooy askan wee leen doyloo woon dénk leen app biñ ñu leen joxoon jot na jëlaat nañ seeni réew seet nañ ñeneen ñu leen doy ñu jox leen mu jeex léegi yow en tant que patriote maanaam koo xam ne yow da nga bëgg sam réew nga yor lenge di doxal ak sa morom yor ko di doxal wurta doon jariñ maanaam wurta doon solo si li war a doon solo si mooy yow ci biir gaal gi nga nekk fexeel ba gaal gi mucc gaal gi teer ji ci tefes gi yaa ngi ci biir gaal gi maanaam yow nga nekk euh, capitaine gaal gi ak nga nekk benn client bu ne ci biir gaal gi rek ñoo war a yem ci yow yow benn yitti nga war a am muy gaal gi teer ci tefes gi ci jàmm nga wàcc dem ci sa yitt maanaam député yëpp c'est-à-dire ñoo député yi ñu nekkoon majorité nga xam ne ñoo nekkoon mouvance euh, présidentielle maanaam li waroon na am ci ñoom bu amoon li war a am ci ñoom bu fekkoon na am na ah. benn yitte rek la am mooy ne réew mi dox waaye lekkuma ci ndab li kon dama ci xëpp suuf ah. jàpp naa ne mooy doxin wi ñu doon dox bon bu fekkee ne euh, président Bassirou Diomaye Faye dafa ñëw hmm. jox leen ak proposition de loi ne dafa bëgg di dissoudre ñaari institution yi muy conseil économique social et environnemental ak haut conseil des collectivités territoriales hmm. xëy na euh, yaakaar naa bu fekkee waxtaan wi laaj na ko danañ ci danañ ci war a ñëw ci ci ñaari euh, kii yooyu hmm. yaakaar naa lool hmm. bu fekkee ne xam nañ ne président de la république dissoudre gi muy dissoudre ñaari institution yooyu du njariñal boppam hmm. waaye njariñal sénégalais yi lay doon njariñal réew mi lay doon yaakaar naa ñoom bu fekkoon ne patriotisme mi ngi ci seen biir hmm. an waruñ ko ko woon a gàntal parce que ay institution la yoo xam ne ay alal daf ciy dem so loolu li président wax hmm. ak it liñ campagne woon ñoom ñoom bi ñuy campagne dañoo gisoon ne ay institution la yoo xam ne amulul askan wi njariñ wala bërilul askan wi njariñ te alal ju bare ngi ci dem te li ci dem mënoon naa dem mënoon naa dem ci askan ñoom ñu diggee woon ne buñ fi ñëwee danañu ko danañu ko dissoudre léegi nag dissolution bi foog naa ne doonul woon jar ñuy toog bay am beneen législature door ko dissoudre président war naa mën a bind projet de loi am laaj député yi ba xam ndax danañ ko ko mën a voter buñ ko ko mu nekk euh, ab loi su ko defee mu mën cee sukkandiku ah. dissoudre léegi nag bu fekkoon ne ñoom député yi patriotisme mi ngi ci seen biir ah. yaakaar na euh, doonul woon am problème di solution bi ah. waaye dañuy jàpp nañ comme moom moo jiite réew mi ñun dañoo jóge ci bopp réew mi war a opposé yi ñun fépp fuñ mën a yeew buum ci baatam rek xoj ko ba askan wi sanctionné ko bañ ko ah. foñ leen mere leen ñun darañ fa parce que am nañ kàttan googu ci réew mi hmm. man de jàpp naa ne loolu moo doonoon seen gis-gis ci li tax ñu gàntal ci voté euh, voté xam nga bu fekkoon ne dañoo yem ci loola man jàpp naa ne doon na doy sëkk président jël ay matuwaayam comme délai bi mu war a tas assemblée nationale nga xam ne loolu yoona a ko ko may. agsi nañ ci délai boobu te moom li bëgg a doxal. bu fekkee ne amul majorité absolue ci biir assemblée nationale lu ko mën a doxal. Hmm. danaa jàpp ne loolu kese maanaam la euh, proposition de loi boobu mu leen jox. xam nga man bu fekkoon ne njariñal boppam la moom. moom man bu ci jo bu ci député yi ngant dama leen di félicité ah. waaye man eh, xëy na dana ci ñëw sax ci kanam ndax man ku yàgg a xeex hmm. ci ay institution yoo xam ne suñu yaakaar na loolu war nga koo diglu ci suñu ci suñuy ñaari kii ñaari institution yooyu waaw ACCT ak yàgg naa cee xeex hmm. depuis Macky Sall ah. damaa d'accordul hmm. eh, loolu sax xëy na danañ ci ñëw waaye daal ci ci li may daaneel rek mooy gàntal googu ñu ko gàntal rek président mënoon na cee sukkandiku bu ko neexee doyoon na sëkk mu sukkandiku ci dissoudre assemblée nationale rawatina nag bu fekkee ne dañ cee boole ñoom ci seen bopp hmm. ne dañoo bëgg a nërmeel gouvernement bi waaw ah. fu ñu koy teg motion de censure fu koy teg motion de censure fu ñu koy teg hmm. parce que daal yow avant motion de censure bi sax gis nañu euh, euh, li nga xam ne moom mooy Euh, euh, euh, droit orientation budgétaire bi bi ñu waroon a doxal waaw ñu gàllankoor kon ndax lan premier ministre moom lañ amal problème ne léegi li jëm ci réew mi ñoom dañ koy boycotté waaw mu ngi noonu léegi nag xam nga xëy na loolu sax moom dana xaw a politique lool hmm. duñ ci mën a dugg waaye premier ministre ah. bu fekkoon ne assemblée nationale bi mel na ni mu war a mel hmm. am ay député yoo xam ne ay patriote lañ ah. pour mu dem moom def euh, déclaration politique générale am du am hmm. problème ah. waaye ay député yoo xam ne ñoom à l'époque ca ginnaaw dañ daa toog ne ñoom réew mi ñoru leen ah. ñoom député yi diw lañ ah. bu leen diw indilee ab loi loi boobu mu euh, leen Macky Sall indil ñoom duñ xool ndax baax na ci askan wi wala baaxul ci askan duñ xool ndax baax na ci réew mi wala baaxul ci réew mi duñ wax xool ndax baax na ci institution yi wala déet bu ñu leen indilee loi rek dañ koy voté te depuis deux mille vingt deux ak lu jiitu deux mille vingt deux c'est-à-dire deux mille dix sept vingt deux ak deux mille douze ba deux mille sept législature yi fi jaar yëpp nga xam ne ci biir bañeeru Macky Sall yëpp noonu la doon dox mooy ay député yoo xam ne bu ñu fa nekkee benn yitte lañ am muy loi bu ñu leen indil donte ne loi buy écraser adversaire politique la ñu koy voté bu dee loi wala boo xam ne luy arranger gouvernement bi la hmm. dañ ko koy voteel hmm. boole ceeg xeex xuloo saagante waxante lu ñaaw ak rëbbonte loolu rek ñett ñett législature yëpp yi fi Macky Sall organisé yëpp hmm. muy bi mu def 2012 ak bi mu def 2007 euh, hmm. ak bi ñuy organisé ci 2024 2022 bi yëpp noonu la demee woon hmm. parce que jëmmi Macky Sall ci boppam mooy nit koo xam ne kim la ki muy tabb fal la jox la ay responsabilité maanaam soxlawut ci yow compétence est-ce que xam nga loolu. Hmm. Macky Sall soxlawul compétence ci nit soxlawul nit ku compétent Macky Sall benn yitte la am ci ku muy mooy nga déggoog moom ci bépp saal buloo bu mu la defloo nga def ko hmm. nga bépp saal buloo boo xam ne defloo na la ko nga def ko hmm. maanaam yow lexóor goo mën a def ak ndëggte goo mën a def ak jubadi goo mën a def mën na laa làq loolu mooy jikkoy Macky Sall bari na ay ministre yu ñu épinglé ci ay dossier ñëw jox ko ko mu war koo jébbal procureur mu instruire dossier euh, instruire dossier boobu ñu yóbbu leen ci kanam yoon mu jël dossier ne dama ci teg sama cocc moom moo wax ci làmmiñu boppam ne bari na <coughs> dossier yoo xam ne bu mu ci tegul woon sama conc ñu bari danañ dem kaso concam loolu mu tegoon ci dossier bi nag yaakaar naa ne conc la Sénégal yi teggi nañ ko pourtant tegoon na fi IC ICF pour ñi nga xam ne euh, OFNAC bokk ci pour ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ay mbokkam ba waxoon ne. bu défendre xam nga bi ñu door a falu dane woon. waaw ah. kër yi. Hmm. pour ñi fi nekkoon la. waaw ah. of nag pour ñun la. Ah, waaw waaw. est ce que bu ko doxaloon nga jàpp ne càcc gu métti ay ministres am ay directeurs généraux nekkee woon ci réew bi dara fi am. lu fi am. Hmm. parce que euh, cour cour de contrôle yooyu ñoom ñi ngi doon def li ñu war a def. dossier yi bu ñu ci noppee ñi ngi ko koy jëbal moom moo ñi ngi ko ko doon jox moom moom moo Hmm. mu instruire ko waaye moom moo doon def dossier bu ñëw mu jël ko teg ci loxo parce que benn yitte la am. épinglé na ci dossier léegi moom jàpp na la hmm. ci pet lépp lu mu bëgg te rek da ko ko defal. moo tax moom saal bu la rek la soxla war nit boo ko xasee boo boo ko xasee nangul bépp poste bu mu la la jox loo fa def ci rëxul rëxul mu nëbb la. mais yi doon jub si mu wax ni képp ku gañewut sa gox da ngay sa post waaw xam nga Macky Sall daal mi ngi noonu <laughs> Macky Sall daal mi ngi noonu moom daanaka ay mbirom moom hmm. boo ko toppee lu sotti hmm. waaye benn président bu bu ko gën ñaaw aw doxin depuis mille neuf cent soixante ba nagani Sénégal amu amagu ko hmm. te yàlla bu ñu amati ku mel ni li nga wax ci yi kon yow euh, lay yi nga xam ne président bi joxe na ko ngir tas assemblée bi loolu daal jàpp yow convaincre na la ci li li mu jot a wax. waaw man bu mu fekkoon ne convaincre mu. Hmm. Euh, damay génn. Ah. maanaam maanaam bu fekkoon ne convaincre mu. Hmm. bi waxee ne day tas assemblée nationale dinaa ne ko euh, ànduma ci. bu ah. fekkoon ne. Hmm. député yi ñu ngi ci seen rôle. di def li ñu war a def. jiital njariñu réew mi te bañ a jiital seen njariñu bopp. jiital njariñu njariñu réew mi te bañ a jiital haine bi ñu am ci président de la république ak son euh, son premier ministre. Hmm. bu fekkoon ne loolu amut. Hmm. man bu ñu nee duñu dañuy discours euh, assemblée nationale ndax yaakaar naa ci ñu koy opposé ci laay bokk. Hmm. waaye nag euh, man bu dul sax ay proposition de loi yi leen indil ak yooyu yëpp. man damaa jàpp ne législative bi moom bu président de la république toogee bu nekk rek daf ko war a dissoudre te organiser waat beneen. ñuy wax ne dafa dafa dellu ginnaaw ci ay waxam dafa def parjure. fi wax ne dafa leen a waxoon ne leen le treize Ousmane Sonko dina ñëw ba pare tas assemblée bi ci le douze loolu tamit am na ñuy wax ne wor la loo loo gisee loolu. waa xam nga nag euh, gis nga doomu aadama. xam nga ñun sax dañ koy faral di wax ne hmm. euh, loo maanaam l'homme vouloir hmm. Dieu dispose. ah doomu aadama li muy bëgg mën na di ko wax yooyu il faut ñu di ci dogalante kànt maanaam nit li muy bëgg. Ah. man na di ko wax waaye bu demee bay jëf li mën a nekk rek lay def hmm. xaw ma ndax dégg nga li ma wax déet. dégg naa ah, maanaam nit. Hmm. xam nga li mu def moom du lu ay. Ah. bis sàngam laa ko war a tas tasu ko bis boobee ñu ne par daa wax lu mu defut loolu du lu ci nit xam nga nit lu ay ci moom. mooy fen woo tey waaye li nga bëgg def nag nii nga ko bëgg def waaye situation bi mayu la nga defee ko nii nga dem defee ko ne la moo moo moom jëfit ah dafa wax ne le treize mooy nekk. datu euh, li nga xam ne moom mooy déclaration politique générale bi waaw ba pare tas le douze waaye dama euh, déclaration politique générale bi man dama dama man dama bokk ci ñi nga xam ne d'accord ma ñu def comme député yi hmm. déedéet mais un président tamit bu bu bu waxee bind lu waxam jooju tamit waa xam nga xam nga lu bon hmm. mooy fen woo xam ne nit ki def koo tey hmm. mais wax li nga bëgg hmm. nga dem ba jëf jot nga gis ne li nga bëgg bokkut ak li mën a am nga def li nga am nga def nga li mën a am loolu kenn ku ne mën na ko mën mën na ko nangu euh, gis nga nag euh, suñ gis nga ñi ci sow ñi maanaam ñi ci ñi nga ci dégg ñu di ci sow xam ga problème bi du lu rëy maanaam bis sàngam lay def nangam bis boobu agsi nga defe ko naneen hmm. maanaam loolu du problème hmm. du lu rëy borom kër bi da ko def toujours ci biir këram man nga décider ci sa biir kër nga dem ba war a jëf jëf lu wut li nga deside woon parce que da ngay xam ne li nga décidé woon ak li mën a nekk bokkut hmm. léegi nga décidé woon mais lii moo mën a nekk mais ñi nga ci dégg ñuy sow ñëpp mooy ñi nga xam ne démb ak ki demb bi ñi di opposé ñoo doon wax Macky Sall tëj tëj leen rey leen ci kaso ñoo ko doon wax dissoudre seen parti hmm. ñoom ñoo ko doon wax ne ko ñii ay salafiste lañ hmm. mënuñoo yor réew bi gëmuñu ay sëriñ gëmuñu tarixa ay wahabiya lañ buñ ñëwee danañ fomm màggal yi danañ fomm gàmm yi ñooñu ñoo ko doon wax léegi buñ demee ba ñi ñi ñi ñi doon tax taxe yooyu yëpp ay rebelle ngeen nag hmm. ay force force euh, occulte ngeen nag force euh, spéciale ngeen rek hmm. mais kooku bu demee ba jël réew mi en gi nga amoon ci moom dem démb ak bërki dem rek loolu ngay continuer du dara loolu du dara suñ kaw am wax tamit ne président bi ci diggante euh, le premier ba le boobu assemblée nationale daal da da doon lim lim acte yi mu fa doon def yëpp acte politique politicien la maanaam dara taxa loo xam ne daf ko jël au sérieux pour réew mi waaw waaw léegi nag sëñ bi waaw politique nag politique ci boppam hmm. maanaam ay pexe lay doon maanaam ay nit ñoo xam ne dañoo xëy xëy taxaw ne dañoo bëgg a daana sa gouvernement hmm. xam nga ñooñu ñooñu yoonu yéene wuñ la réussite yow dañ lay yéene échec total hmm. loolu kañ def mos ab assemblée bi taxaw ne day daane day daane ab gouvernement dégguñ ko fi ah man ci li ma fàttali ko déggu ma ko fi ban pas-pas lañu am ci def gi hmm. mais comme taxawaay boobu lañu am ci yow bëgguñ nga am réussite bëgguñ askan wi bëgg ci yow ah. li nga waxante woon ak askan wi bëgguñ nga def ko hmm. li nga yéene ci réew mi bëgguñ nga def ko hmm. mais sëñ bi nañ tàllal seen noonu nañ tàllal seen noonu li li wax ci diggante président Diomaye ak Ousmane Sonko Diomaye daal président la boo xam ne dañ ko teg noonu rek mais Ousmane Sonko mooy décidé ci lépp si wax ne euh, yi fi jaar yëpp da ngay gis ne Ousmane Sonko daf ko déclaré yo pare Diomaye soog a ñëw ci daal man bu ma sañoon ñu ñu ñu ñu <laughs> laaj. parce que daal mais euh, waaw enjeu bi élection yi ñu jëm nii enjeu bi selon yow enjeu bi lan la doon ci. sénégalais yi nga xam ne mooy sénégalais lambda wi hmm. yi nga xam ne ñoom ñoo jël quatre vingt quatre pour cent jox ko régime bi léegi ban enjeu moo leen di xaaraat ci législative yi nii ban taxawaay lañ ci war a waaw xam nga élection législative dafa am solo ah. ndax da ngay sàkku ay ndaw hmm. maanaam bo yoree boo yoree ab réew hmm. da ngay sàkku ab majorité ah. absolue boo xam ne dañu lay nekkal ci assemblée nationale ngir lan mhm. parce que assemblée nationale ay député lañ fay dajale ñooñu fay dajale ay représentants wu peuple bi lañ ah. da nga wax ju baax mhm. maanaam ñi dajee ci assemblée bi ay représentants wu bi lañ mhm. léegi yow président de la république bari waa na looy bëgg a def loo xam ne ci réew mi la jëm doo xëy xëy rek am sañ-sañu def ko ak li ñu lay jox ci doole li muy bari bari da ngay dem ci ñi nga xam ne ñoo représenté peuple bi. Mhm. dégg nga wax ji. waaw su ko defee nga ñëw ne leen indi leen ab proposition de loi ne leen damaa bëggoon a def nangam ak nangam ak nangam. Mhm. ñoom bu ñu ko càmbaree ba xam ne lii njariñal réew mi la njariñal askan bi la ñu voté la ko. su ko defee nga mën ko doxal. Mhm. loola moo tax président de la république bi di soxla majorité ci assemblée nationale gis nga bu fekkoon ne député yi toog ci biir assemblée bi. du ñu fa ba noppi jàppe seen bopp ay opposant waaye dañu fay nekk jàppe seen bopp ay représentant du peuple hmm. bu boobaa président de la république dootul woon soxla am majorité ci assemblée nationale hmm. parce que dana ko wóor ne moom bépp proposition de loi bu am xool ne lii njariñal askan bi la njariñal institution yi la bu koy indi lay député dañ ko koy foteel du am benn problème kon bu boobaa bu fekkoon ne noonu lay demee maanaam président de la république am problème am majorité assemblée nationale ak ñàkk fa majorité. mais nii député yi Macky Sall yi doxee. Hmm. day tegtale ne ñoom waa kër Macky Sall yi prochaine législative législative yi di ñëw nii. Hmm. bu ñu amoon majorité ci assemblée nationale. Hmm. président de la république du liggéey premier ministre du liggéey. seen yéene ji la ñuy eggale. seen yéene ji ñu am ni ba tax ñu dissoudre assemblée nationale bu boobaa lool la ñu yeggale. li nga wax ju baax léegi nag kon day doon warugar ci sénégalais bépp sénégalais hmm. boo xam ne président présidentielle yi jàll yëkkati woon nga sa carte électeur dem ci sa bureau de vote jël carte président Bassirou Diomaye fay nga voteel ko da ngay amaat warugaru élection législative yi di ñëw nga dem voté liste bii nga xam ne mooy liste Pastef parce que pas-pas bi nga koy defee mooy ah. maa leen fal c'est-à-dire maa leen yóbbu ci tool yi pour ñu liggéeyal waaye nag ngir ñu mën maa liggéeyal liggéey bu sont dama leen wutal jumtuwaay yuñ ma liggéeyale ah. xam nga yow mi nga xam ne yaay yaay yaay yaay nu mu tuddati bi yaay jëwriñ xam nga fii ne peuple Sénégal bi ñoom ñooy jëwriñi ñi jiite ah. ñi jiite nii ay surga lañ hmm. est que di wax ju ba hmm. maanaam président Basirou Diomaye fay ak euh, président Ousmane Sonko ay surga lañ ci peuple bi peuple bi ñooy njaati yi peuple bi ñoo leen di lëggéeyloo ñoo leen teg fee ñu nekk léegi su ko defee peuple bi léegi yow mi nga xam ne da jàpp sab surga hmm. yóbbu ko ci say tool ndax da ko fay bàyyi ak loxoy bu fekkee ba nga mu lëggéey la da bàyyi ak loxoy neen da ko jox jumtuwaay yum lay lëggéey ci biir tool bi am déet hmm. léegi nag peuple bi ñoom ñooy njaatige yi hmm. président de la république ak premier ministre ñooy surga yi ak membre gouvernement bi yëpp ay surga lañ dañ leen liggéeylu ñun ñoo leen di liggéeylu pour nag ñoom liñ bëgg ñu doxal ko dox ci réew mi ñun askan wi ñun ñi nga xam ne ñoo leen faloon majorité biñ leen joxoon ci présidentielle nañ jël majorité bu ko ëpp jébbalaat leen ko ñu am ay toogu yu ko mat a sëkk ci assemblée nationale nga xam ne député ya fay nekk dañuy nekk député yoo xam ne dañuy d'accord ci doxinu nguur gi ba noppi yéene nguur gi am am hmm. am ndam waaye lañu ñu waxante woon ak askan wi ak projet bi ñu leen jaayoon ñu man koo doxal ba askan wi bëgg ci ñoom hmm. bu ñëw sa bëgg ci ñoom waaye kenn ku ci nekk nga ne ñii day yeex nañ leen a fal hmm. buñ xamoon ne lii lañ leen def lii lañ ñu defal kon faloon nañ leen démb nga xam ne député fa nekk loolu mooy doon seen yéene euh, ci euh, état bi fi nekk ah, loolu nag su ko defee kon euh, liñ ci lancé comme appel mooy wax askan wépp ñu xam ne njaw des na xam bin hmm. buñ jàpp nag ne fal nañ président de la république lépp sotti il faut président bi danañu ko jox majorité absolue ci assemblée nationale muy ay toogu yu ko mate hmm. nga xam ne bu ëllëgee lépp lu mu bëgg a doxal ci réew bu ñëwee ne député yi projet de loi bi kat damaa bëgg ngeen votel ma ko ah. ñu votel ko ko mu def ko loi dara koy mën a doxal hmm. li daal jàpp naa ne mooy enjeu wu élection yi nga xam ne mi ngi ñëw ndax dina yomb ci ñoom ndax gis nañu fan yi ay hmm. coalition yu juddaat yu bees ñu gis ne PDS ànd ak euh, APR ñoom Khalifa Sall ay euh, Bougane Gueye Dany Pape ñoom ñëpp hmm. taxawal nañ ay coalition ñetti coalition yu mag yoo xam ne taxaw nañ ko est-ce que dina yomb ci nguur gi waaw est-ce que ñoom ñu dama dama ñëw présidentielle moom nañ koy présidentielle ñaata daal la woon ah mais dañoo dispersé woon ànduñu woon tamit waaw ànduñu mais ñaata candidat la woon amuñu woon boor yi ay 19 yooyu dix neuf candidats. Hmm. ñoom ñi ñu di coaliser ñëpp ñi ci ëpp demoon nañ demoon nañ présidentielle. Hmm. lu ñu am. <laughs> ñu am am ay trois pour cent am un pour cent am zéro virgule kenn sax nga ciy mën a lim ku ko ci ah. Ah. waaye ñi ci des ñëpp ay un pour cent ak deux pour cent ak lañ doon am. Hmm. te jàpp naa ne. Ah. diggante euh, mars. ak léegi man jàpp naa ne seen poids électoral wàññi ko war na fi. Hmm. bu baax. lan. Hmm? lu waral nga jàpp loolu tamit. dara dara xewaatagu fi diggante boobu ak léegi. dara xewaatagu ñu ci bari ci ñoom génn ñu yi la ñuy soog a génnaat. dara xewaatagu fi. waaye nit ñi xam nañ liñ mën a woon ak liñ mën wut. Hmm. présidentiel yi dafa leeral lu bari. Hmm. ndax bari nañu doon fëgg dëng jàpp ne am na dara luñ pëse ci réew mi hmm. loolu dana leer ci élection yi di ñëw incha allah. Hmm. nan nga gisee taxawaayu buggaan jamono yi ci eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gu bees gi moom. Eh, waaw moom day xam naa bu ma sañoon. ñu bañ a waaye daal xam naa xam nga dafa am loo xam ne. nit du ko may boppam yàlla koy maye. Ah. maanaam jëmmi Ousmane Sonko bari na ñu koy def wujj. ñoo ah. xam ne li tax ñu def ko wujj mooy jàpp ne ni peuple Sénégal sénégalais yi mel ci moom maanaam ay pexeem la moom. pexe Ousmane hmm. fekk na du pexe. Hmm. te Ousmane Sonko ci boppam xam na ne li ma am ci sénégalais yi mënu koo may boppam. Hmm. loolu yàlla def la. Euh, bari na ñu koy mere ñoo xam ne parce que euh, jëmm jooju nga tudd ah. mu Bougane Gueye maa ngi koy bàyyi xel ci depuis ñi faru ba léegi hmm. euh, mi ngi jóg di leen attaqué waaye xam nga attaques yi aussi du ay attaques yi yu xam-xam la la déedéet xam nga fi mu ne nii hmm. fi mu ne maanaam corriger état bi corriger état bi ci aw doxalin fi mu ne dafa yombagut ndax ñoom bi ñu leen falee léegi tëdduñu nelaw waaw ah. tëluñoo lekk tëluñoo naan parce que dafa am projet bu ñu jaayoon sénégalais yoo xam ne jàpp nañ ne ñoom buñ ci essayé sénégalais yi dootuñ gëm hmm. amuñu pas-pasu sénégalais yi seen yaakaar di tas ah. moo tax liñ man lépp ñu ngi koy def te opposant yi nga xam ne xàmmee nañ ñoom ñëpp xam nañ ne état bi liñ man lépp ñu ngi koy def hmm. léegi yaa ngi wax sànq ne bari na ci ñoo xam ne génn ah. parce que boo génnee looy wax parce que xam nañ ne liñ mën lépp ñu koy def am réew nag mënoo ko jot defar ko ci ñaari weer ak ñetti weer loo ko defar ci at loo ko defar ci ñaari at même ci duñ ko defar sax ci seen premier mandat bi hmm. parce que bu fekkee ne da ngaa ñoo xam ne avant nga leen di wuutu xam nañ ne yaa leen di wuutu ñu ne lépp luñ la mën a yàqal luñ la ko yàqal bala ngaa ñëw yow boo ñëwee ab defar rek daf lay doy sëkk soxla loolu moo dal nguur gi fi nekk mais teewul ñu ngi góorgóorlu te yëpp xam nañ ne ñu ngi def seen kéem kattan maanaam wàcc gi ñuy wàcc ci terrain bi woyofal gi ñu woyofal seen bopp bokk gi ñu bokk ak askan wi seeni métit ak seeni naqar ak seeni problème hmm. loola ci nguur yi ko jiitu daw ñu ko fi gis hmm. mais nag fi ne nii boo bëggee boo bëggee nu mu maanaam boo bëggee opposé hmm. attaque personnelle rek nga mën a ñun ci li li ñu nemmeeku fan yi muy Bougane muy Pape Djibril Fall muy ñeneen ñi ci des ñëpp dañu gis ne fi mu toll nii lépp lu xew rek ak anam bu mën a xewee moom dinañ ko lijjanti ba tax taf ko ci kaw nguur gi muy eh, wàllum mbëkk meeg wàllum mbënd meeg xam nga xam nga dañoo xam nga dañoo jub élection bu ñu jëmee élection en général noonu lay noonu lay bindoo xam nga man jëmi Pape Djibril Fall boobu nga tudd man Pape Djibril bu doon sama sago hmm. waxtu wi daf ko dul woon fekk mu toog di opposé ah. déedéet parce que Pape Djibril euh, dama ko mos a estimé hmm. ci jamono bi nga xam ne mi ngi nekk ci benn télévision benn télé de la place Hmm. loolu fa def émission bu tudd jàkkaarloo am idée yu pertinent Sénégal yi di partager ay idéem ci ci seeni téléphone safoo ko lool jox ko bopp man ci jamono boobu dama daa wax ne euh, moom day bu àndoon ak Ousmane Sonko dana baax lool parce que nuroo nañ ay idée bokk nañ ay discours hmm. te ay jeunes lañ te classe politique bi fi nekk nga xam ne depuis soixante ba léegi ñu ngi fi ñoom ñëpp nekk ay milliardaires te moment boobu askan waa ngi torox ñi ngi tawat mënuñoo faju suñ système sanitaire baaxul plateau médical bi doxul ni mu war a doxe ñi buñ añee duñu reer xale yi di dem ci ci ci mbëkk mi hmm. ñu ci bari amuñu ay xëy dégg nga hmm. napp geek càmm geek njàng meeg lépp sooxe ci moment boobu ci la suñuy euh, responsable politique c'est-à-dire suñuy euh, politiciens nekk ay milliardaires ci alalu askan wi ah. ma jàpp na nag classe politique boobu nga xam ne depuis 60 ba léegi ñu ngi fi. Hmm. xale yi ndaw ñi jeune yi dañ leen fee war a jëlee man loolaa taxoon ma gisoon jëmi Pape Djibril Fall ma gisoon ko ci biir Ousmane Sonko. Hmm. ba mos naa cee waxtaan ak benn xaritam bu ñuy wax euh, Abdoulaye Cissé Sam ku ko jege la. parce que jege na ko trop moom it day sama wëllëre ndax xam nga mars deux mille vingt deux damaa def soq damaa jóge fii. Hmm. jëm Taïf. bi may wàññiku ma def accident ci yoon bi accident bi metti woon lool ma entré fii un mois ci hôpital jànnatu opéré Abdoulaye Cissé Sam ñëw fi seet si ma ginnaaw bi nga xam ne tane naa ba génn hôpital ba dellusiwaat ci kii mu ñëw fi seet si ma ànd ak benn xaritam bu ñuy wax El Hadj Baara Sow mu ngi mi ngi Italie El Hadj Baara ñëw na fi ci lu yàggu rek ndax fi la màggale bi mu ñëwee bi ñu waxtaanee ba ñu war a teqali ko ma giseek ak moom moom Abdoulaye Sy Samb nga xam ne peut-être xaritu Pape Djibril ne ko daal euh, Pape Djibril la gis naa mu def rentrée politique waaye man daal euh, doxin yi ma gis nii man taxut ma saluer ko lool. Ah. ndax bu ma sañoon euh, ñoom ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk discours bi ay jeunes teg ci hmm. askan wi am ci ñoom yaakaar. ñu bokk ay bëgg-bëgg bokk ay ambition ci réew mi man bu ma sañoon ñoom ñëpp dañuy ànd ñii laa ko waxee xaritam boobu euh, xëy na damay door a jóge ci feebar maa ngi door a jóge ci accident mënuma di dugg ak a wàcc ne man dana dana ma jaral jóg sol sama daal ba ñëw Dakar gisee seeg moom waaye daal comme yéen benn ngeen moom muy xaritam boobu di Abdoulaye Cissé comme benn ngeen dama bëggoon ne boo demee nga waxtaanal ma ak moom ne ko daal soxla naa ko bi mu demee yaakaar na deux jours après ci la ma woo téléphone moom abla si Samb moom ne ma maa ngi ak Pape mi dama la ko bëggoon a jox mu jox ma ko téléphone ñu waxtaan plus de trente minutes lu bari ci réew li ma la wax ni loolu laa waxtaanee woon ak moom. da ah. man bu ma sañoon comme yaak euh, Ousmane seeni discours duggante na askan wi am ci yéen yaakaar man li ma euh, li ma gënaloon mooy ngeen boole seen bopp. kenn dara bañ dox seen diggante parce que yéen bu fekk bu fekkee ne mbooloo dañoo taxaw kenn ku ci nekk discours di benn euh, maanaam ambition yi di benn hmm. jubluwaay yi di benn yéene ji ngeen am ci réew mi di benn ba noppi kenn ku ci nekk beru bersa bersa bersa kuréel hmm. damaa jàpp ne loolu daf leen ni affaiblir yéen ci seen bopp kon bu ma sañoon da ngeen di ma danaa ñëw Touba benn ajjuma ànd ak yow julli su ko defee daan bokk waxtaan lu bari xëy na loolu yàlla dogalu hmm. waaye man loolu moo doon sama pas-pas parce que nag gis ma woon moom hmm. tey ji ñu dem ba euh, nguur gi nguur yi fi nekkoon jóge fi parce que bu dee nguur Macky Sall ñetti génération yi ñoo ko ñoo ko kii woon hmm. muy ñëwoon ci Senghor ñëwoon ci Abdou Diouf ñëwoon ci Wade ñoo àndoon ak Macky Sall seetlu loolu waaw waaw maanaam PS PDS ak APR ñoo àndoon tudd benn bokk yaakaar. Hmm. du dëgg. Hmm. léegi nag man damaa jàppoon ne bu ñu demee tey jii ba ay ay moromam xam nga ñi ñi ñiy jiite réew mi ay moromam lañ fi mu hmm. bu ñu demee ba ay moromam jiite réew mi Pape dafa waroon a bokk ci biir mouvance présidence bi tey man damaa gisoon ne dafa waroon a dafa waroon a nekk ci biir yore ndombal tànk. ànd ak ñoom liggéey te xam ne ñoom ñoom ñoo bokk ambition waaye malheureusement problème bi mooy. Euh, jóg gi mu jóg euh, war a opposé wu ba pare mu mel ni Ousmane Sonko mooy adversaire politique hmm. lool moom dëgg yàlla jaaxal na ma waaye man lii lii ma lay wax nii moom waxtaane naa ko moom ah. te bu ko bu digloo kàddu yi dana xam ni déggante nañ téléphone te it lii moo doon sama xémanteef mooy ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk ay kii parce que loolu naka jëkk loolu laa mos di dox am eh, bi ñuy wàcc élection yi fii toll ci ay wut ay parrainage am na fii benn kilifa bu ma set si boo xam ne ci candidat rek ci candidat yi la bokk ñoo na fi seet si ma hmm. waaye bi mu ñëwee dama dul xam nag ndax dana bëgg ma tudd turam moom déet moo tax foofu laa ci yem waaye ñëw na fi seet ma parce que ci candidat yi la bokkoon eh, bi ñëwee ci biir waxtaan man li ma ko wax mooy man man man yéen ñëpp ngeen teqali ko hmm. kenn ku ci nekk berse kuréel bu bopp gënalu ma parce que muy yow muy Pastef muy eh, Pape Djibril Fall eh, PDF ak ñu mel ni yéen damaa gisoon yéen ngeen boole woon seen bopp def ko muy lenn comme yéen a bokk ay ambition yéen a bokk ay bëgg-bëgg ci réew mi ngeen boole seen bopp def ko benn mhm. su ko defee bu ëllëgee bu ngeen jotee ci réew mi ngeen ànd doxalandoo ah man naka jekk loolu moo doonoon moo doonoon moo doonoon sama kii waaye daal wax dëgg yàlla ñi yëf yi doxe mhm. man gisewu ma ko woon noonu Pape Djibril laal wax dëgg yàlla ak kim doonoon moom te ay jamono ci ginnaaw tey jii mu toog ci biir gaa yooyu ma gis gaa yooyu ma gis man jàpp naa ne mënoon naa bañ a ñoom di parce que euh, moom ñi ma gis mu mu mu mu war a coaliser ñoom war naa am ci ñoom xam-xam par rapport ak fi ñu jaar ak parce que jëmmi xalifa Sall boobu ma seen ci biir euh, nu mu tuddati ci biir ndaje bi Khalifa Sall ku ne xam na ne mi ngi woon ci biir Yewwi Askan bi waaw ñu jox ko fa cër bu rëy léegi nag nañ taxaw tuuti ñu jàngat maanaam démbi démbi Khalifa Sall. ak fi mu dajeeg Ousmane Sonko fi ko Ousmane Sonko yóbbu parce que xalifa Sall. Hmm. PS dafa daanu. Abdoulaye Wade gouverner pendant douze ans. Hmm. ñoom ñu nekk ci opposition bi. bi fi Abdoulaye Wade jógee Macky Sall ñëw. ci deuxième tour bi. ci la waa PS jàppale Macky Sall bi ñu noppee ñu ànd gouverneur assemblée du noonu la demee woon mais nag dafa mel ni ci jamono booba xalifa euh, sal dafa yëg ni Tanor mi jiite woon PS dafa nar a seeyal parti bi ci biir APR te it loolu wartoon a mën a nekk ci gisiinam parce que parti boo xam ne gouverné na pendant euh, trente neuf ans mhm. ndax Senghor a ko njëkk a yor gouverné fi pendant vingt ans Hmm. jóge fi jox ko Abdou Diouf mu gouverne pendant dix neuf ans muy trente neuf ans hmm. léegi benn parti boo xam ne dafa sosu diggante deux mille huit deux mille neuf hmm. deux mille mu jël réew mi nga ñu jël parti boo xam ne am na plus de quarante ans dugal ko ci biir parti boobu door am ñetteet kooku xam nga xelluwut mu mel ni euh, Khalifa Sall moom d'accordul woon ci ñu seeyal parti bi ci biir euh, APR te loolu dana leen yóbbu duñ mën a am candidat ci élection deux mille dix bi Macky Sall yégee ne Khalifa Sall mi dafa am ambition politique hmm. daf koo xeex jiñ ko alal hmm. man xam nga néew ma képp kuñ kuñ ne da jël alalu réew mi buñ ko càmbar man waxuma loolu ah. waaye dama ne moment bi ñuy jàpp Khalifa Sall di ko tuumaal un milliard huit cent di ko yóbbu ci kaso bi boole ko presse bi ñu di ko chargé ah. ci même moment boobu ñi ngi épinglé ay ministre Macky Sall ak ay directeurs généraux ñi ngi leen épinglé ci ay dossiers ci ay ay ay ay ay milliards. Ah. ay scandale euh, financier ay milliards. Ah. di ko jox dossier mu di ci teg cooncam dégg nga. Hmm. kon bu bu bu yëkkatee dossier euh, nu mu tuddati dossier Khalifa Sall dafay xam ne dossier politique la hmm. donte ne nag ku jël alalu réew mi bu doon benn benn dërëm la dañ ko war a càmbar hmm. waaye nag politique bañ cee rax léegi nag bi nga xamee ne yàlla dogal na euh, mu demee noonu ñu tëj ko ñu àtte ko ne cinq lañ ko war a tëj mu tëddi ñetti at ñu def élection 2019 yi libéré ko mu dem parce que élection yi dañ bañoon mu fekk ci bit hmm. bi ñu ko génnee fekk yàq nañ ab daram écrasé nañ ko politiquement ba Khalifa Sall lu nurootul lu kenn xam hmm. mënul a taxaw fenn wax Ousmane ko moo ko jël hmm. raxas ko ba mu set wecc sanga ko ba set mu teg ko ci kanam population bi ba nit ñi amaat beneen estimation te Khalifa Sall bu bokkut ak bu njëkk ba Mm-hmm. est-ce que loolu xam nga ne amoon leer sax kay pourtant bi ñu demee ba euh, Ousmane ko nekk ci ay xat-xat mm-hmm. réew bi di takk ndaw ñi di dee dégg nga ñu jàpp xale yi di tëj ci biir kaso yi nga xam ne man man mii ci sama sama jën bopp ci jamono boobu dem naa ba toog mm-hmm. euh, mënatuma muñ xale yi dee parce que nit ñaa ngi am lu leen naqari bu ñu génnee dem ci mbedd yi ñu tiire ay bal ci seen kaw ñu faatu ñenn ñuy tiire ay ay bal blanche ci seen kaw seeni cër di yàqu mm-hmm. ñu ci bari ñu amputé leen ñenn ñàkk seeni liggéey mag xool toog ba mu yàgg ma xool gis ne maa toog di ko waxtaane ci biir euh, ci kaw min bari doyut mm-hmm. ma ma jàpp ne dañoo war a jóg jéem a dem seet kilifa diine waxtaan ci ñoom mm-hmm. parce que situation bi critique na bu situation réew bi ci jamono boobu Euh, ma imaam Dame Ndiaye yi nga xam ne jiite na association bu mag muy euh, rabitatul aimmati war doxaat fi Sénégal dégg nga hmm. euh, ligue des de et des ma hmm. woo imaam Abdoulahi Lam moo jiite jamaatu Ibaadu Rahman imaam Gelaajo Ka moo jiite xarakatu Alfala hmm. ak Babacar Mbuub bi nga xam ne Euh, époque boobee moo jiite woon ànd sàmm jikko yi hmm. comme ay nit lañ ñu ne ci réew mi jiite ay mbooloo ñenn ñi di ay imam hmm. askan wi di leen diglu ma waxtaan ci ñoom ci situation réew mi ñu ne ma la nga bëgg mën a leen ñu bokk gise hmm. euh, bi ñu demee ba d'accord ne réunion bi war na am ma jóge fii dem Dakar fekk leen ñu dem dajee ci institut islamique Dakar def fi réunion bi ñu noppee nga xam ne bi ñu réunion la ñu tënk ci réunion ba mooy ñaar benn bi mooy ñett ñetti mbir benn bi mooy akay dañuy def caravane de la paix ci kër xalif généraux yépp waxtaan ak ci situation bi réew mi nekk parce que ay mag yi juróom-ñett fukki lañ bari na luy xew ci réew mi xam ne mën ba yegg ci ñoom en général xam nga suñu kër kilifa diine yi ni muy faral di demee euh, toujours président maanaam toujours nguur gi rek laa bëgg a wax dafay faral di miine biir kër kilifa diine yi. ay infiltration. waaw hmm. ba lu mu yegg ci ñoom mën nay bañ a yegg ci ñoom. waaw loolu nag dañ koo xam ñun tenir ci compte. Hmm. ñu ne léegi euh, kon dana ñu dem gisante danañu dem gisanteeg ñoom waaye ki jiite opposition bi. Hmm. muy Ousmane Sonko. ak président Macky Sall it ñoom ñaari it mënuñoo ñàkk a xam ne ñun ci loolu lañ doon dox. Ah. bi ñu juboo ci loola ñu daal di tënk jàpp ay délai. yoo xam ne dali bis ci lañ war a def li bis yi ci lañ a ci même jour bi ma déggante ci Ousmane Sonko ci ndimbalal euh, benn xaritam bu ñuy wax seex mbaki Thiam ba ma cay dem moom laa ci àndal nga xam ne damaa jógee ci réunion bi dem kër Ousmane Sonko pour rendre ko compte ci li ñuy waxtaane ci réunion bi ak xamal ko ne ko réew mi mu muy moom muy Macky Sall mënuñoo ñàkk a toog ah. parce que mënuñ ko bàyyi nii waxtu wala réew mi di tàkk alal nit ñi di yàqu ñii di dee ñii di eh, seeni cër di yàqu ñii ñu leen yóbbu ci ci kaso bi mënta mënta mënta wi mm-hmm. il faut yéen ñaar ngeen bokk toog waxtaan ma dem toog ak moom waxtaan ceeg moom liñ ci war a waxtaanee lépp ci wàllu réew mi biñ noppee ñu door a def karabaan eh, boobu pour wax la rek moment boobu fi réew mi tolloon ci ay coono ak i problème eh, ma jaajëfaale jaajëfaale imaam yooyu nga xam ne wax dëgg yàlla ñoom laa àndaloon Euh, ñu doon ci dox loolu ñu doon ndax dem dem nañ dem nañ ci kër kilifa daanaka un peu partout. Hmm. ci xalif seen roo yëpp. xalifa buñ ci mën a mënut a gis it euh, boole nga ñoog sa sa représentant euh, xëy na ci am na ci ñoo xam ne danañ dem fekk seen yaram sutante. Ah. nga xam ne ci moment boobu nekkuñu woon di génn sax nit ñi di leen gis seen njaboot parce que duñ leen gis. waaye bu boobaa it da nga yëg ne ñëw nañ fi nga boole ñoo ki ñu war a boole ñu waxtaan ak moom li ñu war a wax ak moom mu rendre le mu rendre le Hmm. kon loola moom moo doon suñu responsabilité. Hmm. Euh, ñu def ko ci léegi nag ci jamono boobu nga xam ne foofu la réew mi tolloon. Hmm. ñoom Ousmane Sonko defal leen. ñu leen kenn mënulut ndax ànd naag ñoom yóbbu leen élection lokal waaw jox leen ay maire yoo xam ne mosuñu ko war a am. ba maire Dakar bii bu ko Ousmane Sonko bëggaloon boppam jot ci. waaw waaye daf ko jox tax waa taxaw. dëgg loolu dëgg. te pourtant am na am na sax ñu ne daa waroon a bàyyi nit te mairie Ziguinchor ba te jël mairie Dakar bi. waaw am na ñu wax loolu am na wax loolu <laughs> mais Ousmane ni muy politiquer. Hmm. dafa bokk te classe bi mu fi fekk ni ñuy politique. Hmm. parce que Ousmane Sonko maanaam politique am dafay jiital intérêt askan bi hmm. ci moom laa mos a dégg leader politique bu toog wax say militant ak say sympa sympathisant ci problème mu liste rek di wóor du war naa dugg di wër dugg moom ci boppam mu ne leen bu fekkee ne nii ngeen bëgg a doxee bay boo kon ñun ñu jàpp ne ñii fi nekk sax ñun ñooñu tane ah. ndax demaguñ fenn tàmbali di xëccoo ay post hmm. wax na ko wala wax na ko kay ñëpp dégg ko hmm. loolu benn leader politique bu ko ñemee wax ay ay ay num traité hmm. parce que dafa jiital l'intérêt général ci l'intérêt personnel bi ñu demee tey jii bañ na ko yow doo dem élection te teg ko ci jaay doole rek ku ne xam na ne conseil constitutionnel ci jaay doole la ko teg ba ba ba xañ Ousmane Sonko euh, candidature am. Ah. loolu ñun Sénégalais yëpp xam nañ ko. Hmm. mu yëkkati ni tabb ko te pourtant fekk nañ ko ci biir prison ba di négocier ak moom moom Ousmane Sonko. Ah. pour ne ko nañ nañ dàq élection yi su ko defee nga mën a bokk Abdou Karim Wade mën a bokk. Hmm. xam nga loolu moom moo ko wax ci làmmiñu boppam. Hmm. waxut fii bi mu génnee ne daf leen bañ ko ko waxee daf leen wax ne candidature yu boppam bu te tax ñu jalgati sàrt réew mi. loolu la wax de. am naa am naa candidat ba pare. mais nit kooku ku ko gën a gore am na fen hmm? lu toll réew hmm. ñu bëgg koo teg ci sa loxo nga man du ma jalgate ak duma jalgate euh, constitution bi ngir sama njariñal bopp ah. te bu te bu ko nangu woon dañuy jalgate constitution bi ah bu ko nangu woon hmm. faaw dañuy jalgate constitution bi ngir mën a aj élection yi jàppar ko beneen del waaye moom mu ne sama candidature bu bopp euh, mënut a tax kon Ousmane Sonko dama laa bëgg a wax rek ne la ni muy bokkut ak ni classe politique bii di politique parce que en général ci lima gis bi ma commencé ba nëgëri dafay jiital jiital l' intérêt général ci l' euh, kii nu mu personnel hmm. léegi nag ah. bi nga xamee ne ànd naag ñoom jox leen ay maire ñoom waa taxaw ak ñi mu àndaloon ñëpp ci ci nu mu biñ jóge biñ fa jógee ñu dem élection législative deux mille vingt deux ah. ndax bu dee euh, élection locale yi décembre deux mille vingt et un la. waaw ci mois de juillet deux mille vingt deux ñu organisé euh, nu mu tuddati. Hmm. élection. législative hmm. nga gis nombre député bi ñu am. la c'est la première fois. Hmm. maanaam ñu naan parti au pouvoir rek euh, nu mu opposition bi ay benn député ñaari député la ñu ki am quatre-vingts. deux xaw ma 83 kii am 80. 82 kii am 83. waaw ba ci kii fekk ji ñee. dem fekk ji leen. xam nga loolu moom c'est la première fois. waaw nag du liggéey kenn bu du liggéey Ousmane Sonko. loolu lépp ba leen ko defalee ba pare bi mu tollee ci ay xat-xat ñu waroon a taxaw ci wetam muy Khalifa Sall ak Barthélémy Dias ñu waroon a taxaw ci wetam jàppale ko. dañ ko beddi parce que problème bi lu mu doon muy Macky Sall moo leen gëmloo ne leen. kii ngeen topp bu ngeen ko toppee it moom du dem élection hmm. te day suux suuxaale leen kon bay boo ngeen daw ko ñoom ñëpp dañ ko daw di ko gën a enfoncé kay gis nañu Barthélemy Dias di ko gën a enfoncé Barthélemy Dias mel ni moom mi daa toog naan sama doomi day sama doomi day moom di enfoncé hmm. euh, nu mu tuddati Ousmane Sonko waaw dem banaan waaw ñu fi doon wax garsa garsa ñu wane ne ñoom ñëpp ña ci kaso moom bu fële eh, Casamance jóge nañ fa dem Guinée Bissau yenn yu ne wax na ko. lu ne tuumaal ko ko. lu ne na ko ko. Hmm. Eh, léegi nag wax dëgg yàlla jëmm yu mel noonu. man hmm. gisuma Pape Djibril Fall ci seen biir. du fa dara wax dëgg yàlla man hmm. Pape Djibril Fall. Ah. dama koo gisoon ci ñi mu bokkal génération. parce que muy Khalifa Sall muy Barthélémy Dias te depuis PS lañu woon. Pape Djibril eh, élection yi fi jàll yaa ngi koy wax léegi. Hmm. élection législative jaar na fi. Hmm. mu am plus de trente quarante cinquante six mille. Hmm. Euh, voix. permettre ko mu mën a jàll nekk député. ñu demaat présidentielle. Euh, loolu wàcc ba mu am dix huit mille voix. ci cinquante six mille ak dix huit mille loolu soree na loolu da nga jàpp communication bu mu parce que ñu bari nañ sorti yi mu def euh, ay victimisation ak ay wax ak yeneen wala choix politique bu bon boo xam ne def na ko rek la nga jàpp ne erreur la boo xam ne def na ko ba waral. wàcc bu gaaw boobu. man daal man daal xam nga li ma li ma xaw a jaaxal. Hmm. Euh, moom nag wax dëgg yàlla damaa mënta kii ci mbiram ndax xam nga it wax dëgg yàlla <laughs> euh, moom man dama koy estimer. ab ah. Jibril moom euh, dafa am bët bu ma koy xoole wax dëgg yàlla ah. du bët bu may bi may xoolee classe politique bi fi nekkoon. Hmm. wax dëgg yàlla. Ah. dafa am bët bu bu bu bu rafet boo may xool ci moom. Hmm. moo tax ma danaa xaw a am complexe lool. ci wax ci moom waaye nag len daal. man moom xaw a jaaxal hmm. mooy bu fekkee ne ñun dañoo jàpp ne dañoo ànd di politique ñu jàpp ne suñu adver suñu principal adversaire mooy Macky Sall. waaw ñu jàpp ne moom la war a contester moom la ñu war a tiire ci moom nga bàyyi ko fa. Hmm. di tiire ci principal opposant hmm. lool moom lu jaaxal askan wi la xam nga loolu fi ne askan wi ñu daal di commencé bu buñ bëggee dugal ci seeni nopp. ne dafa am ñu Macky Sall ngemb. ñuy opposé opposé lu te fekk na duñ ay lool loolu fi ne dañuy wax ne seytaane waxut dëgg waaye yàq na xel loolu fi ne day daal di dugg ci ci ci noppi nit mm-hmm. moo tax man daal erreur politique bi gën a mag bi ma jàpp ne moom gis naa ko ci moom mu def ko mm-hmm. mooy loolu ah. gis nga fi ne bu ñëwoon politique politique am tuddut Ousmane Sonko taasu ko amul ci moom lu mu mm-hmm. ba pare am ci moom sympathisant bi bi ko nit ñëpp xamee woon démb parce que nit ñi dofuñu parce que Pape Djibril bi Ousmane Sonko di door a commencé politique gis nañ niñ meloon. moom fekk na ko sax xam nga dem na siq moom émission boo xam ne Pape Djibril moo ko doon introsé. muy tontu. Hmm. te kenn ku nekk gis na it défense yi mu ko daa défendre. Hmm. surtout en mars deux mille vingt et un. wala book février boo def diggante février deux mille vingt et un. Hmm. ba mars. Euh, digganteem ak problème problème mu Adji Sarr boobu bi mu amee. ku nekk gis na taxawaay bi ci Pape Djibril taxawoo. témoignage hmm. yi mu defoon ci eh, ci nu mu tuddati. waaw ci Ousmane Sonko. xale yi dañ ko doon hmm. muy ay beau témoignage. Hmm. xam nga ginnaaw bi la centre politique. waaw euh, mais daal wax dëgg yàlla boo ko gisee daal muy tiire ci kaw Ousmane Sonko moom loola am naa ci euh, am naa ci jaaxle jàpp naa daal erreur politique bi gën a mag ci moom. mooy loolu. sëñ bi temps baa ngi dem. ma waa euh, balaa maa jeexal ci. réduction de compte bi kii laay ñëw ci damay njëkk a ñëw ci ACCT. ak euh, li nga xam ne moom mooy caisse de dépôt euh, non ak li nga xam ne moom mooy conseil économique. social et environnemental. Mm. loolu président bi. Mm. tenté na pour jëm ko supprimer. Mm. Euh, ñu bañal ko ko. mais ñu ci bari tamit président bi sax wax na ne xaalis bu bari lañ ci doon dugal am ñu wax ne seize milliards ba Abdou Mbow génn moom tamit wax ne. même buñ ko tasoon sax. 16 hmm. milliards yi nit ñi wax naan 16 milliards 16 milliards 10 milliards yi moom nekkatu fa loolu Abdou Mbow wax na ko. Hmm. law yow lan nga ñu mën a leeral ci mbirum euh, ñaari institution yooyu. xam nañ ne loolu la a ñor la tamit. loolu loolu Abdou Mbow di wax fa nekk na fa xam nga problème lan la. Hmm. xam nga tasuñ ko pour un an tasuñ ko pour deux ans. Ah. dañ ko bëgg tas pour toujours moo bañ fee amati. dañ ko dañ ko war a tas définitivement. léegi nag. Euh, jëmmi man xam nga maanaam mars. Ah. mois de mars deux mille vingt et un. Ah. laa ci njëkk def xutba. Mm-hmm. mars. Mm-hmm. deux vingt et un njëkk def xutba. macha allah di ko ñaawlu maanaam institution boobu. Mm-hmm. ñaari institution yi muy haut conseil bi ak xam nga Ablaye Wade Sénat la fi fekkoon. Abdou Diouf def ko fi. Abdoulaye Wade bi muy campagne élect campagne électorale en 2000 Sénat boobu dafa waxoon ne bu ñëwee da koy tas. waaw bi mu ñëwee da ko dëgëral tas na ko sax. Hmm. waaye daf ko remplacer ak beneen institution. Hmm. Macky Sall hmm. avant muy ñëw dana woon bu ñëwee daf ko institution bi fi Abdoulaye Wade def da koy tas parce que amul euh, njariñ réew mi da koo tasoon taxawalaat ko. tax Pape Diop waaw. après Macky Sall tasaat ko. Macky tas ko Macky Sall dana woon bu ko tasee. maanaam. da ko fiy jëlee. waaw mu ñëwee mu tas bi tudde ko au conseil. Hmm. jël bële tudde ko conseil économique social et environnemental. Hmm. benn bi am na cent soixante quinze membres. Hmm. benn téeméer membre ak juróom fukk. yaakaar naa conseil économique. moo am boobu. waaw déedéet téeméer membre cent cinquante membres conseil économique. cent soixante quinze membres au conseil. des collectes des collectivités territoriales membre bu ci nekk di fayu ay million waaw dañu lay jox oto waaw di jox carburant indemnité de logement état bee ko yem ki ko jiite dana fay maximum huit ba neuf million dañ koy fay salaire moom salaire par mois hmm. danañ ko fay huit ba neuf million mais ci réew mi mel ni Sénégal laa wax de. Hmm. dégg wax ju baax. waaw ba pare moom dafay am fond politique ko jiite. waaw moom day am fond politique boo xam ne moom lay dur déroulé. fond politique boobu ay milliards lay doon mais kenn ko càmbar. cest à ay maanaam weer wu nekk daal danañ ko nattal ay million boo ko xaymaa ci ci ci at mi mu nekk ay milliards. Hmm. dégg nga wax ju baax. waaw lan mooy doon seen i njariñ ñoom. maanaam maag yow mii ci yem ñu leen di nattal loolu noonu yëpp maanaam maag yow mi maag yow mi ñuy seetaan ñoo ci yem képp xamuñ seen hmm. xam nga bu dee assemblée nationale yow xam nga seen i hmm. parce que waxtu wax dëgg yàlla waxtu nekk yaa ngi gis seenub liggéey hmm. lu état soxla ci ñoom la koy jaare bañ jox ko ci ndigal mu door ko mën mu door ko mën a wéyal mais conseil économique social environnemental ak haut conseil kenn xamul seenub liggéey ci réew mi ba noppi ñuy jël alal ju toll noonu di ko ci ci réew moo xam ne euh, maanaam c'est-à-dire jëmmi Sénégal ci boppam rek mm-hmm. ci réew yi gën a ndóol ci Afrique ci la bokk. Mm-hmm. leer. li wax mm-hmm. bokk sax ci quinze premières yi. mais réew mu mel doonu saw ndaw amuñu lu ñuy xëy xale yaa ngi jàng ba pare amuñu amu amuñu liggéey. dégg nga nappkat yi gis nga euh, licence de pêche yi. jaay nañ seen géej. gaal yu bari tey jii xale yi di ci dugg di dem ay moo la koy ay moo koy conduire. waaw yaa ngi dégg. Hmm. njàng mi gis nga nim ni sooxee mbay mi gis nga ni mu amee problème. Hmm. transport bi yaa ngi gis problème bi. Hmm. suñ tali yi xat na ah oto yi màggat na. yooyu yëpp di ay problématique yu ne ci biir réew mi ñuy créer ay institution di jël ay dizaines et des centaines de milliards di ko ca def. te fekk na réew maa ko soxla. nit ñu bari bu ñu tawatee dañuy faatu dañuy toog xaar parce que amuñ lu ñu fajo hmm. da ngay dem hôpital ñu ne la ah acu damal defi analyse damal defi ay eh, échographie damal defi ay rajo hmm. loola ay eh, dizaine de mille moo koy def hmm. amoo ko da ngay ñëw toog ne naa xaar bu sa feebaree ay xob ngay dëbbka ay ay ay ren ak nangam ak ñemewoo ko yóbbu hôpital parce que boo demee ci hôpital nga la nga fi fekk alors que bu ci tubaab bi amul benn nit boo xam ne danga toog ci sa biir kër sa doom feebar mbaa yow nga feebar ba pare ngay ragara dem hôpital parce que da ngay bàyyi xel ne sa état bi nga xam ne moo la yilif nga di ko jox sa impôt état boobu subventionné na sa plateau médical sa système sanitaire ba loo waroon a fay jun ci hôpital boo demee mille francs wala moins de mille francs nga cay fay waaw quatre mille wala quatre mille deux cent wala quatre mille trois cent yi ci des état la koy fayal te li may wax nii euh, sénégalais yi nekk Europe di fa dund xam nañ ko bu baax majeure partie bi dangay dem sax di faju te doo fay dara parce que seeni état ñoo entamé seen système sanitaire gis nga loolu ne Sénégal mën a diwu ko de dañu amut ay ay ay patriotique ay patriote euh, ay patriote yu yu yore suñu réew ñun ñu ñuy jiite en général depuis soixante ba nag mooy nit ñoo xam ne maanaam seen intérêt bopp la ñuy jiite ci seen intérêt askan ku ciy def politique ku ci nekk benn yitee ngay am mooy doon milliardaire tey jii moom ñoom nga gis ndakaaru ñuy tabax ay immeuble un milliard. waaw immeuble yu dix sept étages vingt étages loo ko dee di ko luye. Hmm. mu di la génneel ay million nga di ko ci say compte banque ci loo xam ne alalu askan wi nga sacc jënd ko terrain tabaxee ci. waaw ay parking. Hmm. yoo xam ne ay oto centaine de million moo ci nekk oto yi cinquante millions oto yi soixante dix millions. Hmm. mais kañ la réew mi di séddu. léegi nag nga créer institution yu mel ni bàyyi ko fi. Hmm. ay milliards di ci dem te mënoo dem ci askan bi. Hmm. léegi nag. Hmm. jëmmi institution man daf ma yàgg metti ndax ah. en deux mille vingt et un. mars bi ma ci defee xutba xutba ba dafa siiw lool. waaw ah. ba président Macky Sall ci boppam. nit ñëw na fii ne ma indi ne ma xam nga ne sa xutba bi jot na ci. ma ne ko alhamdulilah. parce que li may wax nii waxuma ko ci ngelaw. parce que nag réew moo xam ne parce que bi may bi may bi may jàmbat institution yooyu lii ma la limal yëpp ci ay problème yoo xam ne réew maa ngi koy dund yëpp dama ko évoqué dama ko tudd maanaam problème yi réew mi nekk yëpp dama ko tudd daan na leen nag réew moo xam ne dafa ñàkk bokk ci réew yi gën a ñàkk dégg ay ndawam am problème yi ñu am hmm. askan wa am problème yi ñu am waruñu di créer ay institution yoo xam ne clientélisme politique moo tax ñu créer ko hmm. est-ce que xam nga loolu hmm. c'est-à-dire maanaam tey jii ci misaal ma euh, ci xutba bu yàggu rek maa ngi koy wax keroog biñu tasee assemblée nationale ajuma ji topp xutba bi ma def maa ngi ciy wax ne président de la république na fexe ba buñ ko joxee majorité assemblée nationale hmm. ba mu tas institution bi hmm. institution yi na fexe ba bu ko bu mu ko remplacer beneen lu leer parce que nag nañu bàyyi xel ne jomaay euh, dañoo ci coalition la ñu demee nu mu tuddati élection présidentielle muy euh, Diomaye président hmm. pourtant ak a bari ci seen biir coalition bi ñu ci nekk ñoo xam ne fi ne tey jii mënoon nañoo séntu ay poste te jàpp guñ dara lu leer fi ne bu doon fekkoon ne beneen état la institution yooyu mën na ko tas de bu ko tasee day génne membre ya fa nekkoon hmm. parce que ay membre yu benn boo ko yaakaar la bu leen génnee ba pare nag seet ci biir coalition mu jëlee dugalaat leen fa parce que clientélisme politique lay def lay hmm. doon mooy jàppale ma ma lu leer réew mi nag loolu daf cee war a jog hmm. maanaam ku jog di politique def politique da ko war a def ngir yàlla ak servir sa réew mais politique ngir dund moom loolu dafa war a jeex tàkk ci réew mi hmm. mbaa waxtu yi ko di waaw gudd euh, baax jeex na sax hmm. dañuy dañuy jaar foofu rek xam naa bëggoon naa cee teg réduction compte waaye xam naa ne waaw julli jot na te euh, asamaan si neexul aussi dëgg la ñu bàyyi la nga tàggoo rek ñu jeexal ko waxtaan beneen yoon waaw euh, xam naa liñ ciy tàggoo daal li ñu li ñu waxoon ci njëlbee rek mooy ñu askan wi ci ñu góorgóorlu ci taxaw gouvernement bi euh, taxawu leen ci wutal leen majorité ci assemblée nationale ndax loola kat dana leen dimbale ci liy seen yéene ci réew mi ak ñoom liñ bëgg euh, njiitu réew mi doxalal leen ko mën leen ko doxalal kon daal nañu xam ne nañu leen taxawoo woon ci présidentielle yi ba ñu am majorité nañu leen taxawoon noonu dimbalee loon noonu bañ am majorité ci biir assemblée national bool dana leen dimbale ci liñ bëgg a taxaw ak liñ bëgg def ci réew mi lépp ñu man koo def te it ñu ñaanal leen yàlla mu sàmm leen ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ndax alaaji Abdou Si bu baax ba daf daa wax ne boo nekkee ci biir gaal bul ñaana mucc bul ñaan sëb ëmb mucc ñaanal gaal gi mucc ndax bu gaal gi muccee nga mucc sëb ëmb mucc macha allah te ñoom bu ñu muccee réew mi yëpp mën naa mucc opportuniste yi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi naan euh, Diomaye ji nekk ci bopp réew mi waaye doxalut kii mooy doxal nangam ak nangam euh, président euh, Ousmane Sonko mooy doxal hmm. benn yitte rek lañ ci am mooy féewale leen hmm. maanaam Diomaye la bëgg mu gis boppam ndax léeg-léeg sax nga dégg ko ne Diomaye moom ku baax la waaye Ousmane ko nangam Diomaye ku baax la waaye Ousmane Sonko nangam waaye Ousmane Sonko mi nga xam ne moo xool Diomaye ñi nekk ci biir ab parti hmm. mu bari ay cadre yu ci nekk yoo xam ne jomaay gënu leen a jàng hmm. Ousmane ko xool jomaay natt ko natt ko natt ko ba jàpp ne kii bu ko proposé Sénégal yi danañ ko jël hmm. mu ñëw proposé leen ko yaakaar naa bépp qualité bu nekk ci jomaay hmm. bu ab Sénégalais di wax Ousmane Sonko la ko gën a xam wax dëgg yàlla leer gi dëgg ñi ngi leen salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf ñi ngi sant bu baax di leen gërëm di ko sant moom tamit di ko gërëm ci disponibilité bi di joxe dig dajoo beneen yoon ci beneen waxtaan incha allah